jaajëfalaat bu baax ah yéen ñu ngi si ñu ngi suivre ci li nga xam te ni mooy Leewtoo TV rawatina seen journal revue de l'arène di leen jaajëfal bu baax internet yi Mbaye Babacar soo ma fayee rek ñu daal di wéyee nag ñoom ci lu rusee ci euh, xibaaru suñu làmb. jërëjëf Ndeye Mbacke gannaaw ba bàkk ba daanoo dama lay fay di nuyu bu baax suñu mbokk yëpp yi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam. asalaamaaleykum nuyu naa la. ne Mbàkke maa ngi lay fay amaan mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV pour indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi. mercredi 24 février 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam bu njëkk organisation à huis clos sans l'appui de l'État les promoteurs divisés après la rencontre avec le CNG. mu mel ni ñoom ñi leen di promoteurs yi démb amaloon nañ ndaje ak waa CNG ak euh, ci njiitalu président Birane Sène wante ba ndaje ma jeexee li ñu ci mën a tënk mooy promoteurs yi bi ñu génnee bi bi ñu génnee li ñu xamle. mooy bu amul ndimbalu état bu amul li nga xamante ne bii moom mooy accompagnement pare ñu pour tëgg li nga xam ne moom mooy huis clos dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la démb bi CNG convoqué promoteurs yi ginnaaw bi ñu génnee promoteurs yi dañu waroo ci décision yi nu jël ñoom nee nañ euh, ñu mit ñu mën ci cité Fallou Ndiaye nee nañ mënuñu organiser sans appui état ci huis clos nee na huis clos boobu daal duñ ko def te état bi jàppale woon looloo tax Fallou Ndiaye moom. du teg xaalisam wala du mise xaalisam ci làmb ji à huis clos te état bi jàpp ci waaye ginnaaw Fallou Ndiaye Gaston moom nee na pare na pour tëgg huis clos même bu ko état bi appuyé wut looloo tax Bécaye kii Bécaye Mbaye wala looloo tax Gaston Mbengue moomu euh, confirmé na euh, datu 4 euh, avril bi nga xam ne nii prévoir na ci tëgg Eumeu seen ak Lac de Guiers 2 Gaston également bëgg na huis clos bi mais huis clos partiel la bëgg proposé looloo tax mu ne dina dem seeti Matar Ba pour mu permettre ko stade bi am mille ba 5000 euh, amateurs. Mm-hmm. naka noonu les modalités pratiques du huis clos cent personnes autorisées dans la centre mooy anam bi nga xamante ne bii moom lañu war a amalee lii di huis clos bi président Birane Sène moom moo wax loolu nee nag ci biir làmb ji maximum ñetti téeméeri nit rek la ñuy autorisé ñu nekk ci biir. dëgg la mbay Babacar huis clos bi trois 300 personnes lan autorisé ñu nekk seetaan ci làmb ji waaye si 300 personnes yooyu dina am 20 personnes yoo xam ne nii ci organisation bi la ñu bokk maanaam promoteur bi la ñu àndal am na yeneen 20 personnes yoo xam ne nii officiel CNG bi la ñu àndal am na 3 euh, médecins ak 14 superviseurs di CNG dina am ay arbitres dinañ toll ci 5 waaye journalistes également dinañ ko fekkee. ca naka noonu lañ lay jot euh, la ñuy jot a confirmé mooy Lac de Guiers 2 en avril B52 BG2 en juin Modou Lo Ama Baldé en juillet quelle date pour Tapha booy Boy Niang 2 et Papa mi ngi noonu Ndeye Mbacke doon nga ko waxee xam nañu xam nañu Lac de Guiers ak Eumeu seen kañ la ñuy bëri muy le 4 avril incha allah bu ci yàlla àndee suñu papa Gaston Mbengue moom moo ko taxawal wante tani tamit xam nañu Balla Gaye 2 ak Bombardier tamit xam na ne mois de juin incha allah ñoom ñaar daañu sëgg ba léegi tamit diggante Ama Baldé ak Modou Lo xam na ñu daj daj bi mais li li ñu xamagul tey mel na ni journal bi ñëw samp ci laaj mooy diggante Papa Sow ak xam ne mooy Siteu kenn xamagul date bi wante diggante Tapha ak càppaacoli gii di Boy Niang tamit kenn xamagul kañ la ñuy bëri. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi nga xamee ne Lac de Guiers ak Eumeu Sène dinañ bëree ci 4 avril Balla Gaye 2 ak euh, Bombardier ñu prévoir ko mois de juin moo duloo Ama Baldé mois de juillet journal suñu lam mi ngi laajte. Boy Niang ak Tapha ñoom kañ la ñuy bëree mi ngi waa laajte également Papa Sow ak euh, Siteu euh, combat boobu kañ la ko war a am waaye ñu leeral ci tuuti euh, Papa tafaatin ak Boy Niang 2 Pape Thialis moom moo ko tëgg xam naa di ci quelque temps wala di ci quelques jours dina ci wax lu leer beneen combat mu des ci Papa Sow ak Siteu gulu Pape du Fall moo ko tëdd waaye dernière xibaar yu ñu ci amoon ab Abdou Fall dafa ne woon moom parewul pour tëgg te gisul lu leer parewul pour të balaa balaa tëgg daal dana gis lu leer naa ñi ci ay mbër. looloo tax combat boobu daal instant bi xamaguñ ci dara ñu ma fàttalee ne combat bi ñu ngi ko prévoir le 5 avril bu lay passé maanaam léegi mu am at. ñu di ko xaar beneen combat bi di Tapha Tine ak Boy Niang ñu xaar exclusivité bi du yàgg léegi promoteur bi yëkkati kàddoom Pape Thialis dina ci àddu dina wax lu leer ci combat boobu euh, peut-être euh, am na date peut-être également da koy remettre da koy reporter en tout cas daal dina def benn sortie wax nañu lu leer ci loolu. incha allah ñu ngi koy xaarandi Issa Diop ancien président de l' école de lutte Balla Gaye 1 en 2015 Balla Gaye 2 était en colère et voulait quitter l' école de lutte. Issa Diop moom mi lee nga xamante ne bii moo nekkoon président école de lutte Balla Gaye li mu xam xamlee ci journal bi nee na atum 2015 Balla Gaye meroon na lool booy ba doon waaj génn li nga xam ne moom mooy écrit bi loolu nag ay ay nit ñoo ci def médiation ay nit ñoo ci def li nga xamante ne bii moom mooy Euh, waxtaan ba mu mujjee toog wante xamal nañu leneen ci biir journal bi tamit nee na Double ñaari combat yi mu daje ak Mbaye Guèye yëpp Double Less moo ci am ndam dëgg la Mbaye Babacar Issa Diop moo nekkoon président école de lutte président école de lutte Balla moom nag tey dafa xëy seq waxtaan wu yaatu ak journal suñu làmb li mu fa xamle mu ne 2015 Balla Gaye eh, meroon na trop trop ba bëggoon na quitter wala bëggoon na jóge ci école de lutte boobu di mooy Balla Gaye lu taxoon nag am na lu ko métti woon ci écrit bi waaye mujj na toog waxtaan ba mu ñëwaat ci décision boobu wax na également nee ne Sa ba mu door. Euh, école de lutte Balla Gaye la nekkoon mais après la quitté école bi dem ci écurie papaam di Double Less wax na comme ni nga ko waxee également ci combat bu doxoon Double Less ak euh, Mbaye Gueye nee na ñaari yoon yu ñu daje yëpp Double moo ko daanee. ba léegi jéegaan Ronaldinho à huis clos Serigne Modou Niang retient la date la date du 28 mars. Serigne Modou Niang moom mi léegi nga xamante ne bii euh, promoteur la moom nee na le 28 mars incha allah bëgg na cee amal diggante jéegaan ak Ronaldo Ronaldo bi nag. bokkul ak Ronaldo bii football Ronaldo bii moom day takk ngemb dugg ci làmb ji euh, Serigne Modou Niang nee na jàpp na làmb ji incha allah le 28 mars te ci huis clos la koy amal. dëgg la mbay Babacar loolu Ndoye moom moo ko xamle ndooy moom mooy mu Mouniang production lépp luy Mouniang di doxal ci làmb moom moo koy dox démb nag moom moo euh, wax information bi suñu làmb bi mu jógee ci réunion bi CNG doon euh, amal ak promoteurs yi boobu la ko jël nee na pare nañ daal jàpp le 28 mars. jéem cee teg combat bi di entre war dox ci entre Diegane ak Ronaldo léegi nag ñu koy xaar mu officialiser ko nee na bu CNG démarrer affaire yi rek dina dem foofu régulariser komba bi. te kañ dem nag mooy Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye prépare son gala ce week en Gambie. ma nga jëm Gambie moom mi leen di Fallou Ndiaye borom Ndiaye production euh, incha allah le 27 ak le 28 foofu ca Fass Ndiaga Thioye fas yéene faa amal gala de lutte bu am solo teg ci 1 million 300 mille francs. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Fallou Dia ñu xam ko mu signé ak benn partenariat ak Leewtoo TV moom nag mu ngi préparé bu baax a baax a baax gala wala tournoi de lutte simple bi mu war a amal ci Gambie ci benn village bu naan euh, Fass Thioy léegi samedi bi ak dimanche bi la gala boobu di am. mi ngi koy préparé bu baax a baax a baax mise bi nag un million deux cent cinquante mille la te invité surprise bi wala invité de marque bi rëg-rëg ah, la ak ay yi bëri mu tuddee leen euh, combat boobu wala tournoi boobu kon mise bi un million deux cent cinquante mille un million dimanche bi wala samedi bi moom mooy tournoi léger yi deux cent cinquante mille le lendemain du dimanche euh, poids lourd yi avec une mise de euh, un million kon kon luur yi moom lañu ñu ñoo ñoom ñoom la ñu tegal un million bi ñu fas yéene mbëkkante. noonu la waay incha allah. nañ ko xaarandi ci li nga xamante ne mooy Leewtoo TV incha allah équipe yëpp dinañ fa dem lépp lu fa am rek dinañ leen ko tegal bu soobee yàlla rëg-rëg en Guet des Stars en Gambie. mi ngi noonu rëg-rëg moom tamit euh, xam na ne ma ngay waajal fële ca Gambia xam na ne euh, kii di euh, Fallou Ndiaye daf ko faa war a décorer. mu mel ni tamit fans yi namm nan ko ñi nga xamante ni bii ñooy amateurs yi namm nan ko ndax Reug Reug mbër la ma nga xamante ni bii day def ambiance kon ku bëgg gis ambiance incha allah le 27 ak le 28 foofu ca Gambia Reug Reug ma nga fa. dëgg la mbay Babacar Reug Reug mooy invité euh, amateur de lutte yëpp ñu teewu Gambie ci weekend bi moom nag. li euh, Fallou Ndiaye moom moo ko euh, sargal ba daf ko bëgg sargal ci gala boobu looloo tax Reug rek def benn vidéo di ci invité Balla gay Modou Lo ak mbër yëpp di leen invité samedi ak dimanche ñu daje gàmbi pour neexal journée boobu. foofu nar naa neex de instant daa xew mooy champion MMA ba yi daal di ñëng de retour d'Istanbul. lii daal ñu ngi moom mi léegi nga xamante ne bii dafa demoon Turquie euh, dëkk bu ñuy wax Istanbul mën nañu jàpp ne ñëw na ñibbisi na. lan la andi ak lan la fa jële ci dëkk bu rafet boobu nga xamante ne bii moo di Istanbul dégg naa guddi bu làmp yi tàkkee tarkalla macha allah moo dàq ci àdduna bi. dëgg la Mbaye Babacar li nga ko waxee noonu la yi daal di ngi temps yooyu wax noonu na leen ko bi mu demee Istanbul fu Istanbul nag mooy capitalu Turquie dem na fa am na fa ay semaine journal suñu làmb nag xibaar nañu ne ñëw na d'ailleurs ñëw na dax démb daje na CNG. nee na bi mu après arrivé am nag dina prévoir ay journée yu bëri ndax i daal di ngi mi ngi ci làmbu ji te am na objectif tëgg ay grand kon mën nañ koo xaar ci ay journée yu bari yu nekk suñu kanam. ñu ngi koy xaar Idaly ñu ngi moom souvent day indi ay affiches yu neex. di leen jaajëfal waa loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaaru laam lan ngay tàggatoo yéen Mbaye Babacar xanaa jaajëfal ñëpp jaajëfal suñu sama mama yi nga xamante ne bii nag dañu may topp li nga xamante ne bii mooy revue de l'arène ku ci mel ni mama Khady Diop Diop Juba mama Marème Diop ak mama Degen Fall ak mère Ndoura Ndoura Waly Mbergane ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam jërë ngeen jëf bu suba ak jàmm Assane Waalo Ndeye Mbacke maa ngi lay fay comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier équipe bu Leewtoo TV yëpp di jox dig daje euh, waa internetu Leewtoo TV ci yeneen jamono jërë ngeen jëf. di leen jaajëfalaat bu baax ah, loolu moo nekkoon li gën a fës si boobu xibaar jaajëfal sama équipe technique bi yëpp bëgg naa cat ba cat Mansour Fall Ousmane Yacine di bëggee aussi sama yaay booy borom ndekki yu neex yi ah. mère bu baax bi loolu ndékki bu mu joxe bu baaxul. mère Ndéla mère Ndéla mère Ndéla Fall borom ndékki lu baax ñu kontaane bu baax a baax. wante sama caméraman bi bu leen ko fàtte le benjamin des caméramans Mansour Fall Fall Njaga Yaaram. danaa leen bàyyi leen ko xel dana leen jommal. mañ pro <laughs> matu Aïda bëgg naa leen bu baax a baax a baax di nuyu sam papa bu baax Cheikh Mbacké Kébé jërëjëf.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 Buzz nekk partenariat avec la 2STV Lutte TV ak Bawol TV Equivox ak Leewtoo TV Kewel Info ak Wassare Lamb lépp ngir bégal mbokk internet ma ne mbokk yi bés ba ngoog Fallou Ndiaye jiital Ndiaye production en collaboration avec Fass Diom production foofee ci Fass Ndiaga Coy le 27 ak le 28 février 2021 mise ba di 1 million 250 mille ma ne mbokk yi lii kenn duma ko nettali